Euh, ah, aywa ñu <laughs> day wax ay jombe les ce sont les à côté de l'émission yàlla bu mu feeñ ñu ñëw ci résultat autopsie bi voilà ñu ñëw ci euh, euh, Bakary Sissoko moom ku njëkk kii moom lañu jàpp ni bal bi daal dafa traversé crâne bi maanaam ci bopp lañu ko dóor bal fetal bi ki di Abrahim Wedrago moom bal bi ci dënn lañu ko ko dóor maanaam ci cage thoracique ba mu àndil ko hémorragie interne loolu nag mu ngi am ci violence yi nga xam ne moom mooy bërki dem euh, fële ca euh, xosanto loolu sax tax ba ministre de l'intérieur Euh, moom euh, ma nga fa woon euh, démb mu suspendre arrêté 043 bi nga xamee ni préfet bu département bu Saraya moom moo ko jëloon ba pare ñaax gouverneur bi mu ubbi ay concertation waxtaan acteur yëpp ngir ñu xool nu ñuy taxawale commission yu bees yi nga xamee ni moom mooy chargé wu ci recrutement mais d'œuvre locale non qualifiée boobu de ñu teewul ko moom Antoine Félix jom ci micro Ibrahima Diabakhate ak Badara yi ginnaaw bi ñu jaalee ak massawu ba noppi ñu déglu nag ñii ñu seqal mbir mi xool ku ci nekk lan moo ciy sa xalaat waaye xoolit lan mooy li ñu war a taxawee ak li ñu war a jëfee ba ñii nekk ci région bi ni ñu ko président santé ñu xool seen diggante ak compagnie minière yi naka lañ koy gën a mën a rataxalee tey mbir mi dafa xew ci Xosanto dëgg la waaye département bi yëpp am na ay zone yoo xam ni léeg-léeg dina am ay coow yu fa juddu ba loolu ministre bi yor secteur bi di la ministre Omar Sarr am na yeneen tukki ak yeneen liggéey yoo xam ni dina ñëwaat def ko fi tey li gënoon jàmp mooy ñëw jaale massawu xool nu ñuy dépasser situation bi mais am na beneen liggéey boo xam ni ministre Omar Sarr moom moo koy ñëw def pour région Kédougou bi yëpp voilà kooku euh, le ministre de l'intérieur Antoine euh, Félix Diome euh, ba léegi ci wàllu yoon la ñuy wax ak mbirum Bassirou Diomaye Faye mel ni doyen des de dafa gën a diisal dossier bi nga xamee ni moom la yor jamono ji ndaxte li ñuy wax jonction maanaam dañoo boole dossier bu Ousmane Sonko ak Bosam looloo tax yokkal nañ ko ci appel à l'insurrection moom Bassirou Diomaye Faye association de malfaiteurs attente à la sûreté de de l'État complot contre l'autorité euh, de l'État euh, dossier bi jamono ji kon ñooñ dañu ko criminaliser euh, te loolu nag day tax ba chance am ngir ñu jox ko liberté provisoire mhm. dafay gën a néew wala sax nekk candidat ci élection présidentielle yi soxna Fati ñu wax itam ci politique ak Mame Boye Diao mi ne daal dafa fas yéene samp ndëndam jongante palub njiitu réew waaye dàq nañ ko ca bopp CDC ci bannière coalition vision Sénégal en Sénégal nouveau euh, ca la ko defee mu décliné ay ambition euh, suñu ko falee euh, njiitum réew démb la ko doon xamle ci ab ndaje ñu teewlu ko ci micro Cheikh Diop. man pare naa pour nekk seen mbër bu soobee yàlla. ma yaakaar ni tamit Sénégal gii nga xam ne sunu mbokku béykat. suñu bokk sàmmkat suñu mbokk nappkat yi ñoo gën a bëri laaj na ñu gëstuwaat li ñuy doxalee suñu diggante ak ñoom. Sénégal bu bees bu ñu bëgg tabax waaye it yokk doole gi nga xam ne ñii nga xam ne ñoo yor kaaraange suñu réew ci biir ak ci biti ñooñu tamit lépp lu ñu war suñu diggante ak ñoom ngir sàmm suñu réew ñu continuer di leen dooleel di leen déglu di leen gunge ndax jàmm rek a xaj ci biir Sénégal. di nuyu sunu mbokku sénégalais yi nga xam ne ñu ngi bitim réew nga xam ne doonoo jaaxle ndax li ñuy dégg ci seen réew ci lu bari mën a nekk njaxare ci ñoom di yaakaar ni ñoom ku leen déglu di nga xam ne li ñu soxla yàlla xam na ni bariwul dañoo bëgg seen réew taxawu leen li ma wax rek mooy man duma ma fëkk jëf du ma fëkk jëf maam ku ma ko séqal maam ku ma ko séqal muy président Macky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 ki di euh, Rose Wardini euh, moom euh, bi loolu jeexee mu génne communiqué jàpp ni coalition boobu nga xam ni Sénégal nouveau moom la moom Boy Diaw bëgg demee ci élection présidentielle ñoom nee nañu ñoom ñoo ko moom ñoom ñoo ko njëkk a tànn te ci moom la ñu fas yéene ñoom tamit dem ci élection présidentielle bi moom Mame booy Diaw démb ci ngoon nag mu ne demoon na stade mm. Maître Abdoulaye waat ngir seetaan match waaye nee na dañu ko xañ dugg ci biir mu jàpp jàppee ko ab injustice ba léegi ci mbirum euh, coalition Benno Bokk Yaakaar journal As dañu xam la ni kii di Abdoulaye Daouda Diallo su mayul dina euh, tekki ndombu tànkam euh, tey moom mi nga xamee ni mooy président bu CSE te nga xam ne d'accordul ci tànneef Amadou Ba ngir mu nekk candidat Benno Bokk Yaakaar moom tamit mu war a samp ndëndëm Amadou Ba boobu sax tey ji na amal conseil des ministres mooy bu njëkk euh, ginnaaw bi ñu ko tabee candidat Benno Bokk Yaakaar ci élection présidentielle 2024 yi mhm. euh, moom premier ministre soo moyul sax tamit mu nekk bu mujjoom ndaxte ña ngay rumandaat ni war na tekki ndombu tànkam ci euh, primature ngir waajal boppam ci élection yi lay son fàttali dañuy wéy ci xibaar yi mhm. ak mécaniciens yi nga xamee ni ñoom ñoo nekkoon ci ancienne piste ñoom jot nañu seeni suuf ci loxo Khoy euh, préfet bu euh, Ndakaaru démb la woon euh, mu ñuy xamale ne que loolu dina bokk ci xeexam li ñuy wax criminalité ndaxte souvent dañ doon nekk ci zone yoo xamee ni dañu fa doon def ay ñaawteef fa ñu teewlu ci reportage yu Mamadou Fall ak Amadou Ba. déguerpissement yi ak jël yenn yi nga xamante ni ay mécaniciens ko occupé ci ci Ndakaaru di wéy. Euh, yële ca ancienne piste nag kon tey jii lañ doon dalal mécaniciens yi doon leen jébbal li nga xam te ni moo di euh, seeni i ngir wane ne rek nii am nañu place fële ci sobi xotaan fële ci sobi xotaan gi ñu leen yóbbu nag mécaniciens yi rafetlu ko ne daanaka yàggoon na waaye daal mujj naa sotti. Macky Sall keroog bi mu ñëwee ci ancienne piste bi di inauguré euh, kii nu mu tuddati espace vert bi newoon foofu. Abdou Karim foofu na présenté ma ko mu laaj ma kañ ngeen fi ñëw ñu ne ko ñu ngi nekkoon terre faye kañ ngeen fi ñëw ñu ne ko depuis 2003 ñaata at ngeen fi def ñu ne ko def nañ fi 20 ans mu ne kon daañu leen jàppale jàppale boobu nag leer na tey jii. kon lii nag dafa bokk rek ci li nga xamante ni moo di wéyal kaaraange gi ci Ndakaaru lu ko wër ndaxte bëri na bërëb yoo xamante ni yu mel ni ancienne piste ay ñawteef dafay faral. ñu ngi ci jublu surtout euh, xeex. ak béréb yi nga xamante ni dafay indi gàllankoor ci wàllu sécurité te ku wax béréb yooyu forcément ci biir Dakar di nga ci lim ancienne piste parce que comme niñ ko xamee du ay mécanicien kese ñoo fa nekk mais souvent am na ay defkatu ñaawteef yu profité ci situation boobu pour ñëw kon tey jii mboole mécanicien boo xamante ni rek danga nga bëgg bindu ci yëf yi te nekk ci ancienne piste tijji nañu kon ab li waree boo xamante ni mën nga fa def sa tur ba noppi ñu la jagleel leen tuuti ndàmpaay ngir rek ñu mën a kon yóbbu seen i bagage fële ñu leen yóbbu. ñi nga xamante ñooy mécanicien war a jógee fii ancienne piste dem Sébikotane il faut ñu sante ko yàlla parce que liggéey métti woon na euh, ubbi nañ fi benn bureau boo xamante ne 9 h ku fi ñëw li lañ jox sa notification dañ la enregistré registre boo xamante ubbi nañu ko fi ba pare jox la chaque bi nga xamante ne moom la ngay moom ngay jël pour mën ko utiliser pour faciliter sa déplacement et sa déménagement à Sébikotane. yi fi kon dana wéy délai bi tàmbali na te kon mboolem mécanicien yi ñu ngay waajal autorité yi itam dugal ci seen yoxo bu baax a baax. ngir kon en ancienne piste fekki fan benn mécanicien dootu fa des. dañuy wax ci tremblement de terre bi am fële ca Maroc ak kenn koo xamee ni nag euh, yëf yi fekkoon na ko fa mooy euh, ancien président fédération basket bu Sénégal di Baba Tandian mu nekkoon fa ak njabootam ci vacance moom nag nee na demoon na ba yaakaar ni que yëf yi jeex na que seeni fan euh, fa lay yem dañuy koy teewlu mu dellu si ci moment yu métti yooyu nga xamee ni dund na ko fa ak njabootam ci reportage Fatimata Touré ak Youssou Baro ñu mun ko considérer comme benn rescapé gannaaw yëngu-yëngu suuf bi am Maroc Baba Tandian fa la nekkoon ak famiyam moom mi la nag ñëwaat ci jamono joo xam ni mu ngi ko doon dund mu doonoon lu metti lool. mais 11 heures muy heure Maroc. di 10 heures Sénégal. ma yow 11 heures 8 exactement. ma jigi-jigi rek gis néeg bi di tremblé. Euh, fa euh, posters yi daanu. lal bi di tëb. Mm. armoire yi di tëb. armoire yi dëng jékki-jékki à ma grande surprise mais ma gis mur bi tëdd à gauche ñëwaat tëddaat à droite ce qui veut dire que l'immeuble s'est penché à gauche mm. et, et à un penché à alors heureusement pour nous bi ma gisee lool rek ma ne suma soxna ma ne ko génnal gaaw ñu dem ci tremblement de terre la. ñu daw génn ba pare dem wooy xale yi ñu génn. métit boobee sax mooy ñu gis ay nit yoo xam ni dañoo rek daal di paniqué ñoom ñëpp génn ci mbedd bi moom mel ni ci ngiru dundam mosul gis li ni mel. Euh, di laal seen basang si sur les routes secondaires sur le goudron et parfois même ils bloquaient la circulation parce que tëdd foofu oto yi et puis oto yi bañ bëggoon nañu génn aussi euh, Marrakech. mais mënuñu woon dem parce que station essence yëpp a été pris d'assaut donc vraiment c'était indescriptible. ñu gis ni Sénégal ak Maroc ay pays frères lañu loolee sax moo waral moom milee di indiwaat rek li nga xam ne nag moo di compassion wam ci dëkk boobee. ñu boole ak marocains yi dafa bari depuis euh, Mohamed V ak euh, ak Senghor. Euh, mm. Abdou Diouf ak Hassan II tey Mohamed VI que je connais particulièrement parce que ñëw na fi invité na ma fi donc mois je suis plus que solidaire. Mm. et je pense que les Sénégalais aussi ils sont tous solidaires tey vraiment seen njaal. Euh, et puis euh, ma rafetlu rek réaction bi xam ne ministre des affaires étrangères am mooy Aïssata Tall Sall mm-hmm. euh, décider immédiatement vraiment ak lu mu tuuti tuuti tuuti boole concours Sénégal pour dem foofu comme tout le monde pour jàppale suñu xarit marocain te loolu lu ñu rafetlu la. tey nag bilan bi lu ci provisoire mooy am na lu ëpp 2800 personnes yoo xam ni dañoo ñàkk seen bakkan 2500 yi nag ñoom am ay gaañu gaañu loolee ministère marocain intérieur moo ko xamalee. ñu ngi rek wóyandi li nga xam ni moo di seet bi ngir rek daal xool ndax bilan bi dina évoluer. jërëjëf Fatimata Touré ñu jaxale ko ci match amical international bi nga xam ni moom moom démb fële ca stade Me Abdoulaye Wade Algérie daan Sénégal benn bal ci dara entraîneur bi di Aliou Cissé euh, di euh, regretté but bi nga xam ni jël nañ ko sur coup de pied bi euh, mbëkk coup franc bi nga xam ni moom moo. jox Algérie ndam li mm-hmm. euh, waaye moom nee na kanam bi nga xam ne joram wone nañ ko ci match bi euh, dal na euh, xelam di ngeen ko sànq ci suñu xibaar yi ci nasaraan soxna Fati. jërëjëf Cheikh Tidiane. Babou lan moo tax nga wax ko. moom xam na ko. moom xam na de ah. <laughs> grand Baba Tandian ñu ngi koy nuyu <laughs> muy un fidèle téléspectateur d'Infos Matin. c'est l'homme de l'année. c'est l'homme de l'année. après Diamniadio Marrakech. allah macha allah. yal na ko fi yàlla bàyyiwaat eh, ak itam képp koo xam ne rek eh, rëcc nga ci eh, li nga xam ne moo xewoon mooy suuf si yëngu ñu ngi lay ñaanal ñi ci jële gaañu gaañu itam borom bi defal leen tawféex ndax xam ngeen ne am na benn sénégalais bu si ñàkk bakkanam diggante Sénégal ak Maroc ci diggante bu